jungle. asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi dal leen jàmm fii ci RTV Dakar tey nag ñu ngi fii ci marché Dior fas yéene dugg ci biir marché bi nag waxtaan ak commerçant yi maanaam ñi nga xamante ni nag ñu ngi jaay légume waaye tamit ñi nga xam ne ñu ngi jaay yàpp ak ganaar gannaaw nañ bañ nemmeekoo ni suukar tamit doon na lu jafe ci jamono ji dinañ dem seeti jaaykatu kafe yi ñoom tamit ku leen xam-xam ne dañuy utiliser suukar lu bëree bëri ñu indil ñu ci ay yaatal loolu nag dañuy dugg ci biir léegi léegi dugg ci biir xool éléments yi euh, ñu mën ñoo expliquer nan lay demee parce que tamit nee nañu nettali ci gémmiñu borom la dàkkee dañuy dugg daal di xool commerçant yi léegi léegi. dëgg la foo ko xalaat rek romb na fa metti na lépp a cher lépp lépp dañ lay jox sa dépense mais dafa metti metti na torop marché bi moom foo ko metti rek foo koy foo euh, natt ci metteem rek romb na ko wax dëgg yàlla koor gi day gën a day gën a metti day gën a metti rek waaye sant yàlla sagam ñoo ngi ko fekke di ko nettali ñi ko fekkewul xam nga waxuñu ko ñoo ngi sant yàlla bu baax waaye metti na de wax dëgg yàlla metti na oignon rek nga xam ne fukki dërëm la daan jar léegi boo fa joxewul 100 francs duñ la ko jaay oignon moo gën a simple boo boo joxewul 100 francs duñ la ko jaay ak saf-safal yi ñoom metti metti rek moo tax gisoo ñu saa bu ñu yeewoo ñoo ngi suñu saak di wuti lu ñu am boole lu ñu suñuy jëkkër jox suñu jëkkër yi dee nañ daw nañ bay bëgg a dee barke yonent bi ndax njaboot te léegi lu ñu liggéey lekk ko lu ñu liggéey rek lekk ko te du mate sax dangay gis ñoo xam ne nii lu ñu duñu añ wala duñu reer waaye sant yàlla rek man ko ci sant yàlla bu baax a baax. jàppale ñu dem goo jàppe bu teewee ñu ñëw ñu def client bu la ci def 1000 francs dama toog ak doo ko gis bu amee mais léegi fii mu am nii du leen gis fii mu am nii du leen gis bu teewee ñoom ñu mën gaas di ñëpp ku ci ñëpp daw la ba ba noolaat ba mu tee ñu del si waat ñun client bi ñun ñu jaay jaay ñu bojo bojo fi ñu amoon ay ñoom jaay ñu bojo bojo ñun goree la ñuy jaay Euh, nan jafe trop des fois da ngay xëy sax bëgg loo jaay pour nga gis ko problème la parce que suukar état bi euh, moo tax euh, maanaam manquement bi état moo tax mu manqué sax parce que problème bi mooy buñ ko bàyyi woon bu njëkk ni mel nga xam ne dañuy bàyyi commerçant yi ñu ñu def nañ ko doon defee kon problème du am. mais état bi ñoo ñëw di bëgg imposer commerçant yi ne leen dañ ko war a jaayee 575 te alors que suukar fii may waxee yow commerçant yi li ñu koy jëndee rek ëpp na 600 kon kooku mënu koo jaayee 575 il fallait que bitig yu bëri dañu muj bàyyi jaay suukar parce que bu ñu jaayee suukar buñ leen fa fekkee li ñu leen di daan ah saako suukar du ko jar moo tax ñu bëri dañoo préféré bàyyi jaay suukar. kenn stocké gu suukars bi ñu bëri commerçant yi bëri dañ koo bàyyee jaay parce que li tax ñu bàyyee koo jaay mooy bu ñu leen jàppee daan yi ñu leen ci teg dootul jar ñoom ñuy jaay suukar te suukar ku nekk xam na ne amul bénéfice moo tax ñu bëree bëri léegi bàyyi jaay suukar suukar bi actuellement nii nii nii nii nii nii gars yi ñu koy jëndee far saak ñu ngi koy jëndee mil 31000 francs 31000 francs presque mi ngi leen di dikk ay 600 et quelque kon donc xam nga ne affaire yi gën naa yokk la ñuy jaay te léegi pour nga gis ko problème la loolu lépp nag. Best ah. ci baisse de prix yi ñu doon wax affaire de suukar mo andi problème bi yëpp moo tax ñu bëri nangootu ñoo jaay suukar nook non mhm. non café actuellement ni amul ben problème foo ko bëgg boo demee ñu jaay café amul problème prix bi it aussi na meloon ni la mel maanaam problème bi problème mu la te suukar si li tax mu mel noonu état bi moo moo moo problème yëpp moo ko andi waaw problème yëpp état bi moo ko andi dañoo daa waroon a bàyyi sénégalais ni ñu doon def au début nga xam ne ni ku bëgg suukar da ngay dem boutique bi la gën a jegee nga dem am ko ci facilement doo am problème mais biñ ci dogalee seen affaire de baisse de prix yooyu ba tey di imposer prix yi ñu war a jaay ci la problème yi di am waaw état Sénégal daal bëgg naa ñu gestuwaat seen population yi te xam na ne sonn nañ te sonn bi li ci ëpp nag ñoom ñoo leen koy teg. waaw ñoom ñoo leen koy teg ndax buñ bàyyi woon sénégalais yi niñ doon dundee du am problème mais bu dee dañoo bëgg lu neex sénégalais yi bay ba ba ba leen di dugal ci loo xamante si ni après da leen nen ay jafe-jafe war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax bu ñuy jël ay mesures daal war nañoo xoolaat mesures yi ñuy jël fan lay mujjee parce que instant yi daal sénégalais yi sonn nañ trop ci problème mu suukar da ngay yor sa xaalis wër ci marché bi ba mu daj doo gis ku la jaay surtout nag weeru koor ni ñuy consommer suukar xam nañ ne ku nekk non bekk bi ñu ngi koy am amuñ problème mu bekk bi problème mu suukar am poudre bi lañ am te boo xoolee Sénégal monsieur parti bi suukar am poudre bi la ñuy utiliser surtout ci weeru bi weeru koor xam na ne ku ne xam na Sénégal li ñuy utiliser suukar dañ gën a day gën yokk waaw kon donc bu ñu demee ba am problème bii nga xam da ngay yor bëgg benn kilo suukar pour nga am ko problème la loolu euh, doy na waar état Sénégal nañu dimbali na bàyyiwaat suukar bi bu fekkente ne amu ci na ko fayaat fa mu nekkoon bu ko defee ku ko mën a soxla man koo jot comme niñ ko doon def avant mais actuellement nii daal sonn nañ trop koor gi nag moom xam naa ne problème suukar moom dinañ ko am parce que ni ma gisee affaire bi ni muy déroulé problème suukar dinañ ko Sénégal nañ dimbali état Sénégal nañ ci dimbali bu fekkente ne mënuñu wut ci suukar ngi am jàmm. maanaam dañu gis ni koor mu ngi ñëw tey yàpp aussi ñu ngi wax ni dafa cher loolu nan la fa demee doo ñu mën a. non yàpp moom actuellement moom wax dëgg fa yàlla bu fekkee dëgg rek la yàlla bëgg euh, ku baax ki wàññi na ko moom. waaw ndax yàpp depuis Macky Sall waxee nañ ko wàññi ba léegi yàpp bi wàññeeku na 3600 yàpp xar 4500 fi mu nekk nii moom ku jëndut yàpp si yow nekk mais yàpp bi moom wax dëgg yàlla prix bi moom raisonnable na. ah man bàcc de yokkuma yàpp te du ma ko yokk. incha allah feeg maa ngi koy mën a am li ma koy amee dama koy gën a wàññi waaye du ma ko yokkal kenn bu neexee yàlla waaw ah, baissé wu na bu baax a baax ci ñi ko bëgg a wàññi. xam nga nag même prix waaw xam nga mbir moom marchandise day am ñoo xamante ne bii dañu am intention wàññi ko am ñoo xamante ne bii mënuñu wàññi parce que xol mooy wàññi mais prix bi moom wax dëgg yàlla mu ngi ci 3600 yàpp nag raisonnable na ku doon lu doon jar 4000 ba ci 3600. yàpp xar 4500 parce que 4300 la ñu waxoon mais mënuñu ko am ñun loolu jaadu na. ñu gis ne weeru koor bu dee jub si lu ci mel ni ay yàpp ak ginaar nit ñi dañ ko jëfandikoo lu bëri loolu nag waral nit ñi dañuy dañuy tax liñ naan dañuy profito pour yokk affaire yi yóbbu ko fu mu àggul. moom laa la wax léegi ma ne la affaire bi wàññi xool la doo gis ku mën a jëndee mille francs nga di ko jaay 3600 mais man sama bopp 3600 laay jaay sama yàpp. incha allah du ma ko yokk te saa yu ma ko mënee gën a wàññi dinaa ko gën a wàññi foofu moom ci laa toll moom mais nit ñi tamit euh, euh, xam nga ni mu la ko mën a expliquer marché ak wër soo duggee marché su fekkente ni bii da nga ñëw ñu ne la yàpp 4000 da ngay jàll ca kaca des ba ngay gis ku mooy cher parce que client amul sa client su fekkee dafa base wu ci yow rek bëgg a aj prix bi prix boo xamante ne bi jaaduwul mais da jàpp 3600 la war a mën a jar moom lay jar ci ñi ko bëgg a jaay client yi nag suñ ko mënee jënd plus tamit ah ñi ko bëgg a jaay tamit loolu lañ koy jaayee rek mais man moom 3600 laay jaay incha allah. jërëjëf papa merci beaucoup. ah loolu xam naa ça dépend ci prix bi rek fu ci kaw rek comme ginaar moom loo tax mu yokk moom xam naa alimentation bi ak vaccin la ñu yokk moo tax ginaar dafa cher. dan nañ ko bàyyi ba mu mat 45 jours mais loolu doon nañu ko bàyyi ba mu mat 45 jours parce que day cher boo defee loolu doo ci génn. te day am ay mortalité te lu bëri tam sédiment poussin yi ñuy joxe lu bëri da ciy dee wala day nekk kooku la da ngay màggal ba sonn du màgg looloo tax mu cher bu njëkk bi daan nga jaay li sax 2500 wala luy muy mais la loolu nga jaay 3000 3500 dafay cher bii 3000 la bii 3500 te dafa cher dafa ndaw dafa alu ah, wara lool comme li ma la wax rek alimentation bi moo cher rek loolu moo tax ginaari ndaw parce que mënuñu ko bàyyi ba 45 jours avant carence sinon doo ci génn dara parce que yenn saa am mortalité looloo tax vaccin yi seer na aliment bi seer na gouvernement bi su ko lu mu ñu mën a yówéne lay liggéey bi ñun ñii di ak jaaykat yu ndaw yi ne mu tane ndax lépp ci kaw lay jóge foofu bu seeree rek ñun tamit kan particulièrement sama frère bi may liggéeyal ni day dem di rangu am na këram di élevé mais day cher su moom dañuy dem di jënd jëndee ko ay 2600 2700 wala 2500 nga bëgg ko paas suq ko indiwaat ko ba joor day métti daal te dafa yokk daal dara yombul ñu mënee sax même aussi c'est la même chose yàpp moom dama lay bàyyi la sëñ Matar mu mu la ci gire te dara wax waaw dax merci beaucoup euh, mbokk yeeg xarit yi ñoo ko gisandoo euh, ñu ngi woon fii ci euh, marché bu a gannaaw nag bi nga xamee ne dem nañu waxtaan ak jaaykatu légumes yi waaye tamit dem si ñi nga xam ne ñoo jaay yàpp ak suukar ak kafe dem saafonteeg ñoom parce que tamit fii si Sénégal dafa mel ni dañoo topp problème politique bi topp ko ba li nekk si marché bi sax dañ koo xaw Ah, jëndkat yeeg jaaykat yi sonn nañ lool parce que affaire yi fépp la séeree tey jii ni gis nañ ni koo dékk micro ah, ci côté bu mu nekk ci domaine ba muy nekkee tamit affaire yi dafa metti lool ci côté am ah, ñu leen di jox di daje ba beneen fii ci RTV Dakar ma leen di wax nag restez scotché sur RTV Dakar ñu leen di jox ay information yu leer te wóor